sama xel newul woon ci nekk alkaati. alors bi nga dellu si waatee fan nga dellu si waat à Dakar n'est-ce pas ou bien. dama dellu si directement Dakar. d'accord léegi après lan moo andi nga embrasser carrière policier lu ko waral. d'abord après samay morom yi dañ ko expliquer sama tempérament xëy na daf ma orienté foofu parce que ci lépp lu ma doon def nii laa meloon. ñi ma dañ may respecté ci biir regroupement terrain bi ci biir regroupement yi fi ñuy daje ndax sama rigueur bi ma amoon su ma masaan nekk ci biir classe ñuy jàng kenn du bouger kenn du déranger classe bu ma nekk organisation boobu ma day jub soo ko bëggul da ngay génn yàlla moo ma taayee noonu après nag la ma rattrapé xëy na yàlla daf ko conduire ma ñëw fii Sénégal parce que dama sentir ni mënatuma toog Mauritanie parce que sama yaay daf ma soxla woon sama papa gaañu na. y avait des difficultés dans la maison il fallait que ma ñibbisi ma ñibbisi def ay concours mais yàlla daf ma xëy ci def concours police def concours militaire xawma lu tax sans sans sans rien de déterminant hein, mais il fallait ma ranger wu quelque part. commencer liggéey am xaalis mun a jàppale sa yaay. d'accord loolu moo doon sama conducteur. am na sama benn grand frère bu bari wax fii la ay consort nekk euh, direct euh, président wu association wu alkaati lu retraité yi ñu mhm. koy wax Cheikh Nakita moom laa lay wax ni moom ma tudd ñëw boobu mu ngi dëkk usine ñaari ñëw dem seeti ko boobu moom alkaati la parce que moom ma mag ma toog ak moom ni ba seet mu ni ma mais Cheikh Sadbou yow lu tax doo def concours police bi man concours police ban mun ma police ñu ngi recruter ay officier ci fan yi la Alfonso ma ne ko ah bon mun ma waaw munoo defal waaye xaw ma ci dara ma daal di tafal tafal boobu maa ngi am ñaar fukki at amaguma vingt et un ans mhm. ma daal di dem wax sama yaay commencé wut kayit daal di déposé ma rekk ñaar fukki at laa am aw moom ñaar fukki at ak benn yi ñu exige woon yàlla def ci circonstance yu particulière ñoom retenir sama candidature ma dem def daal di admis dem école police ci bi ma nekkee école police lan ma bëggoon dàq parce que xamuñu xamuñu ñu ngi soog a découvrir ni man awma vingt et un ans grâce au directeur de l'école ci est intervenu pour diir que ni ñun mënuñoo dàq xale bi nga xam ne amul vingt et un ans tey wut ay jeunes pour renouveler suñu police yow yaa def sa concours yaa admis da toog fii vous le méritez te awma vingt et un ans xawma d'accord c'est par la suite maintenant que la boole fil yooyu yëpp j'ai compris que y avait une ci loolu c'est un métier que j'ai compris être des choses que je devais faire parce que c'est un grand métier et je l'ai adopté après j'avoue que je ne l'ai pas choisi c'était pas ma vocation man xalaat ay aviateur ay affaire yu mel noonu yu jëm ci mécanique mais circonstance su sa dund moom la ci poussé euh, moment bi moment boobu bi nga euh, solee li nga xamante ne moom mooy uni uniforme bi ma lay wax. qu'est-ce que vous avez senti jour boobu. gis nga yoon uniforme bi bu ma ko solee premier jour bi ma nekk biir école police dama sentir ni j'étais dans mon élément dafa mel ni dañ ma solal lu bokk ci man amul benn transition pour que ma nekk à l'aise là-dedans xëy na loolu dafa wuy si tempérament bi ma la doon wax ni dama mës a mel nii. samay moroom nangul ma ko ba tey tey tey tey tey maa ngi fàttaliku am na sama benn morom bu ma woo fii naan ma xa fàttaliku nga ma bi ñu nekkee classe ma def nii nga tourné anglais ma et eh, on était de petits enfants donc man dama sentir ni choisiruma mais j'étais dans mon élément et j'ai vécu comme ça mon métier je l'ai vécu pour le sentir dans mon corps et dans mon cœur pour l'aimer au plus profond de moi-même parce que dama wóor ni fii danga nga fiy liggéey li nga xam ne day jëriñ askan wi. d'accord ma def ko commune. alors nga génn école police fan lañ la njëkk a affecté. commissaire Saint-Louis waaw moment boobu vous perceviez ñaata ci salaire parce que soxla woon nga aussi salaire bi parce que bokk na ci li nga xamante ne. ñu cinquante mille francs. cinquante millions yi nag nga ko doon def. su ma ñëwee Dakar parce que fii laa doon fayee ko. Mhm. damay toog sama buntu néegu yaay. joxe ko joxe ko joxe ko ba quelque fois du ma am lu ma paase. pour dellu Saint-Louis. pour dem see dellu Saint-Louis loolu maa ngi koy fàttaliku. pourquoi parce que loolu moo ma taxoon jóg. <laughs> parce que bi ma amee sama premier salaire en tant que stagiaire xaaruma ñu jox ma ko dama dem lebi ceeb ak dawlin yóbbu suñu kër naam nit ñu ngi doon lekk mais loolu moo ma jëlee Mauritanie sinon ma toog fa def ko ñëpp mais dama ñëwoon pour taxawu sama yaay parce que gisuma papa. d'accord alors au fur et mesure ngay gravir échelon yi. mu nekk loo xamante ne yombul parce que vous dites que bi nga ciy dugg déjà vous étiez très jeune yaa ngi amoon vingt ans ci parcours boobu yan difficulté nga ci rencontre en tant que jeune boo xamante ne léegi set fois yi sol nga tenue ak fuggu beeg yooyu yan jafe nga ci rencontré commissaire. pour pour dund dans le milieu pour dund sama métier bi ci biir population bi. ñaari difficulté laa jëkk dajeel yi nga xam ni c'était normal malgré que doomu Sénégal la environnement bi ma yaroo dafa taxoon ma am ay automatisme làkk tubaab ba sama communication ci biir métier bi dafa sooxe dès le départ bi ma taxawee ak nit la première fois pour entendre ko su déggul tubaab rek damay am problème parce que man sama bopp maay il fallait que loolu ma faj ko première personne bi ma entendre ci procès verbal nu koy waxee naa ko ñetti fan pour am benn page et pourtant damay bind lu normal mais communication bi moo nekkoon problème deuxièmement xale laa woon bi may génn école police maa ngi am à peu à peine un ans mais prendre naa conscience su sama dimension wu responsabilité en tant que autorité parce que officier laa nekkoon am benn commissaire de police bu nekkoon sama kaw ñu koy wax Cheikh Oumar Diédhiou moo nekkoon sama chef moom moo ma conduire en stage mhm. mais bugg foo bugg baal noos bugg def yenn yi te xawma loolu nan lay téye sama bopp ba alkaati bi ma doon mën a nekk en harmonie ak saa ma wax ko ko carrément ni que nan laa mën a doxalee sama métier ak lii ma représenté ci dëkk bi ak ku bugg baal laa ku mën a fecc laa nan laay doxale mu ne ma dara kaay <laughs> moom moo la yóbbu. nga ngay débaale. oui ñu ànd débaale mais il m'a appris à m'a am ay gestes yu élégants ci milieu yi il m'a appris ma jàngal ma am taxawaay ak. teewaay nga nekk un gentleman. waaw un gentleman. teewaay bi nga xam ni du forcer sama relation ak nit ñi pour pourquoi parce que dama buggoon génn dama buggoon baale dama bëggoon fecc parce que yàlla daf woon yi tamit. loo doon fecc commissaire au passage salsa. man mënoon naa fecc lépp. parce que salsa la nu dajeel ak rhythm blues musique américaine yi laay consort ay blues li ñuy wax fi R&B ça a toujours existé nous la salsa nous avons vécu euh, sal l'afro salsa la musique mandingue avec les bembeya jazz national mm. nous avons vécu les grands groupes la naissance l'arrivée dans la musique de Youssou nous avons vécu le number one nous avons vécu la naissance de cette musique sénégalaise bi nga xam ne moom la nit ñi dund tey ci ñun la dooree ba Youssou Ndour ñëw tey nekk roi euh, du mbalax donc nous vivions cela mais tamit yeneen di nga xam ne daf fi nekkoon ñun parce que ñun fekk da ko doon mën tey seen génération da ngay jóg rek am nga mbubb bu rafet am nga paas nga daal di dugg ku tëb nga tëb mais ñun suñu jamono ku mënul fecc doo piste du ñëpp ciy dugg day am ñi nga xam ni dañuy tële ba seetaan rek def tubaab ñëwee am ñi nga xam ni am na nañu permission parce que mën na nañu tuuti mën nañu jaxasoo am ñi nga xam ne bu ñuy fecc dañ leen di seetaan. alors nga continuer sur le plan professionnel avancé di avancé euh, nga am li nga xamante ne moom mooy ndombol tànk commissaire pour vous mbetteel la ou bien c'était dans l'ordre normal des choses vu votre progression ci biir corps bi. vous savez euh, dama la wax tout à waxaat alhamdulilah rabil alamina man maay Cheikh Sadbou te dama gëm ni yàlla daf ma may yàlla dafa teew sama parcours loo xool fii doo gis ma so takk téere doo gis ma def dara du may waaj su may waaj alhamdulilah laay waaje soo ko wax bisimilah daal di avancé pour mu nekk commissaire de police officier laa duggee officier de police. police oui. ñu boole ak benn commissaire de police Cheikh Oumar Diédhiou. moom nga doon wax sànq. ma dugg ci biir bi. mais ma gis ni ñii li ñuy def dàquñu ma ko ñi fi nekk commissaire de police li ñuy def dàquñu ma ko ñi gën a mag laa wax de dàquñu ma ko ma gis ni bi ma fa defee trois mois dossier bu compliqué bu nekk man nañ koy jox. Mhm. man man warumaa toog fi nekk officier dama war nekk commissaire de police tardé ci biir rang wu officier dama dem jàngiwaat immédiatement sama jàngal sama bopp. def concours daal di admis et c'était normal parce que yàlla may na ma xel bu doy alhamdulilah rabbil alamin. je n'ai pas traîné dans le corps. des officiers. Mhm. je suis passé immédiatement commissaire de police continuer nekk xale. je suis entré à vingt ans comme officier à ans j'étais commissaire de police. d'accord